am ngeen ba jeex bi jërë ngeen jëf bëgg naa itam mbokk yi bi xamante ne tey Sénégal yépp fi daje ndax lii amul kujje amul gouvernement amul opposition peuple moom moom ndam li peuple bi ñooy teral lion yi li moo waral bi may ñëw si suba laa woote ministre leen l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen na leen président bëgg na ngeen ñëw yéen it fekkee teeru bi ndax ci ngeen bokk li ma bëggal équipe bi moom ngeen bëggal équipe bi te boole leen newoon fi ma nekk moyen yi ma ci def gëm naa ne di ngeen ko def pour ndam li ñëw kon yéen ñu sant leen bu baax ndax lii mooy Sénégal dafay am jamono yoo xam ne mbiru kujje dañ koy teg fële ñu feete ba pare après nag ñu jógaat ñuy takk ngemb yi takkaat ngemb yi ñu demaat ci terrain bi mais loolu warul yàq li nga xam ne moo ñu dajale te li dajale moo ëpp solo mooy Sénégal loolu lañ fi gis tey ma kontaan ci lool loolu nag gone yi ñoo ko may muy lion yi ndax seen taxawaay seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom doo ko indi sa réew jamais ku amul fit ku reyantewul doo ko indi li moo tax ba ma leen di jox drapeau bi ma ne xam naa ne mën ngeen football loolu kay kenn du ko xam naa ne yéenay première équipe de l'Afrique kooku FIFA moo ko wax waaye doyul li des mooy arñe bi ak xeex bi nga xam ne mooy tax nga def ko ni ngeen ko defee ci match yi ngeen def yëpp surtout a partir des quarts de finale de demi-finale et hier de la finale face à l'Égypte vous avez dominé tous les matchs gàcce ngalaam gaynde njaay mbarawàcc dégg nañu ci turu peuple bi yëpp maa ngi leen di jox rendez-vous ëllëg ci yàlla àndee ci buntu palais de la république yéen ak seeni njaboot wa famille ngir Sénégal tatagal leen teral leen ndax ndam li ngeen ñu indil fierté bi ngeen ñu may ba tax na tey Sénégal ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew ci jamono kon jërë ngeen jëf yéen Gaynde Njaay jërëjëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne yaa leen tàggat yaag sa équipe jëf fédération sénégalaise de football maître Augustin sengor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yow it tombé mooy waral ay gaz ak sa équipe jërëjëf gouvernement bu Sénégal ak peuple bu Sénégal jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah.